abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV dal leen ak jàmm dalati leen ak jàmm mbokk internet yu partout TV way leen di abonné ni ki démb nag bëccëg gu tàng jër rek lañu ñu daal di nemmeeku ci militaires yi te ñuy ancien militaire yoo xam ne rek dañoo jotoon a am ay gaañu gaañu ay sorties yoo xam ne rek amaloon nañu ko ci seen diggante ak police yi nag li ko waral du leen lu dul rek gannaaw bi ñu daal di jug jubali foofu li nga xam ne rek waa ministère des pour nag daal leen di jox li nga xam ne moom mooy seen indemnité maanaam mbir nga xam ne rek moom moo waraloon ñu daal di jóg dem ci li nga xam ne rek moom mooy ay intervention ba amoon sa ay gaañu gaañu ni ki démb nag ñu fas yéene woon dem pour jëli nag xaalis boobee la leen police daal di kar si yoon wi nag pour rek gàntal seenu dem jubali foofu nga xam ne ministère des finances mbir mi ni mel nag tax ñu daal di woon a jot a jàppante ni ki démb ba sax daal di amal ay la moo lacrymogènes yoo xam ne rek daal di nañ koy jot sànni ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñooy anciens militaires yi di jot a xam ne que ne kat day metti rek wante duñu bàyyi ndaxte seen àq ak seen yelleef ba muy métti ñoom ñoo doon xeexal réew mii di Sénégal kon nag luñ dem ba dernière minute rek ñu bëgg leen ko daal di xañ dontale nag dem nañ retrait wante kat lu ci mënti am dañoo am seen i àq yoo xam ne rek war nañ leen kaa daal di jox fekk jamono boobu rek géewu politique bi ma ngay lëmbee ci mel ne rek ki nga xam ne moom mooy far Farba Ngom mën nañoo jàpp que ni kat gannaaw bi police daal di def descendre moom mii nag ci mbir yi nga xam ne rek jot nañ kaa daal di eh, xam te mujj ay milliards yoo xam ne rek ña ngi ko doon fuyte foofule ca biir këram fan la wane di mujjee ak ay gëtam yoon di wëyal di def li nga xam ne rek moom mooy liggéeyam nekkat bu fekkente ne mbir mi ni mel am na ay daan mën naka sa fekk donteel naka ko ànd ak président de la république yu bari yi ni mel mën nañ la see bañ a dal di eh, daan fekk jamono boobu tamit gis nañ ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko ci wàllu politique ñu képp leen ràpp benn bunt boo mën nañu faa jaare pour nag daal di mën a participer ci ay